ñu ma mais président est-ce que xam nga li ko def géej la ma ne waaw ma jëlee gisuma ko ñu ne ma demoon ko ma def donc daana ñaanal waaye nag comme parti laa yor de man maa xëy xëy ni ci dama ko. waaye nag comme comme parti bi déggal nañu ma. waaw nit ku baax nga ku bëgg sa réew te am nga capacité. ah ma ne danaa plaider pour ñu def le même a gañe rek. waaw maire yëpp ñu faral.